Cheikh Tidiane Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di fay. yow ngay secrétaire général agriculteur bassin arachidier yi ñuy wax ni campagne euh, njaayum gerte gi dina démarrer semaine gi ñu ma la it prix bi dina toll ci deux cent cinquante euh, kilogramme bi euh, ban jàngat nga ci def. waaw comme ni ma la wax léegi rek ñun am nañ ci tuuti surprise parce que li ci gën a bëri mooy. ci li ñu xam ci histoire tuuti mooy que ne. bu proposé am lu bëree bëree bëri dañu maintenir prix bi ba pare ci prix bi sax danañ daan créer benn espace boo xam ne subvention la woon pour delloo ko huiliers yi euh, donc euh, suñ demee tey ba nga xam ne dañu maam peña proposé na ñu wàcc li nga xam ne moo gën a néew li peña proposé je pense que xaw nekk tuuti jafe-jafe mais je pense que loolu aussi mun na ñàkk nekk problème dans la mesure ñun li ñu bëggoon rek mooy ñu defal ñu prix plancher parce que comme que situation bi tey ren sax dafa teel a démarré fii vraiment euh, am ñu nga xam ne Euh, ce qui est important rek mooy prix plancher bi te loolu luñ geroon la lu yàgg ba nga xam ne vraiment euh, état nangul nañu dégg nga ñu def prix bu nga xam ne kenn dootu ko mën a wàcc buñ ko déclaré te loolu dafay permettre à ce que dégg nga euh, kenn dootul wàcc prix bi day yéeg rek te gerte moom mooy nekk lu nga xam ne bu offre bi maanaam ñiy jënd buñ bëri yaakaar naa ne jënd bi mën na gën a yéeg parce que boo xoolee comme ni daaw deux cent cinquante posé wul problème daal. ñi doon mbapat ndax mën nañ cee limaale Sonacos. waaw pratiquement moom moo ko fi commencé mais dañ ne Fada na gën a dal parce que bu dalee rek ñun sax mun nañ ko conseiller dégg nga mën dana jaar tel tel tel tel tel pour entreprise mu gën a soqaliku ñun mën na ko comprendre parce que vraiment dafa toog ñaari at ba ren di ñetti at mënut a commercialiser donc bu gisee fu nga xam ne mën na fay langaamu dana ko kii waaye producteur bi koo xam-xam ne couche la bu faible bu nga xam ne amul doole donc lañ leen war a dooleel te au niveau du ministère ils ont exprimé exprimé nañ ko au niveau de l'État exprimé nañ ko ne nañ vraiment da nga maam ñeneen ñi di ñëw da nga maam pour euh, wàññi seen doole donc loolu dafay nekk complication léegi daal dañuy wax fala ne ko bu buggee consultance bi consulter ko dafal ko da nga maam yu nga xam ne lañu si dina a jaar jé jéegi pour mën a dem mais pas muy euh, laal da nga maam prix béykat yi mm-hmm. li leen xaw a jaaxal mooy Seynia mu daal di proposé euh, njiitu réew mi daal di gën a wàcc ci prix bi nga xam ne Seynia moom la proposé euh, tey euh, nan lay demee ndax dañ ko yemal deux cent cinquante rek wala mën na door deux cent cinquante ba nu la neex jëm ci kaw nga jaayee ko sa gerte. non yemaluñ ko ci je pense que ne loolu. Seynia li daf vraiment c'était parce que Seynia xam nga dafa nekkoon benn organisation bu nga xam ne baykat yi dañ doon gën di ñaxtu si koom di wax ne moom du wax jamais jamais prix bu nga xam ne dafay jëriñ baykat naa ne critique booboo taxoon dégg nga maam mu yéegal prix bi ci prix bu nga xam ne peut nekkul ak doole état mais état moom liñ koy wax rek mooy que ne comme que plafonné na ñun loolu danañu sécuriser parce que kenn mënatu la jënd mooy que ça te gerte moom mooy jaay boppam yaakaar naa ne buñ fa àggee dana dem niveau bu nga xam ne mun nay passé deux cent cinquante dem di dem te bu boobaa dafay nekk njëriñu béykat bi mais loolu nag li euh, euh, a euh, campagne de commercialisation parce que daf daan nekk jafe-jafe ren nag mu ne woon nañ teel génne prix bi aussi nañ jaay prix bu nga xam ne prix bu baax la dégg nga euh, te yooyu yëpp daf nañ ko teel nañuy génne prix bi parce que en mi novembre nga génne prix dégg nga maam ah, euh, avant fin décembre nga bëgg a loolu am utile la par rapport aux années précédentes parce que année précédente yi pratiquement dañ daan dem ba mi décembre pour mu yooyu nag daan créer ay euh, perte bu ñu teel a sécuriser je pense que c'est quelque chose de beau on va rek avec lii temps bi di joxe bu boobaa dinañ xam ndax gerte gi dana yéegam dé mais gi dana yéeg surtout ku am gerte bu baax moom gars yi danañ la wër si pour lenn sa gerte si bu nga xam ne dina passé foofu njaay mi dina door semaine gi ñu dëgmal officiellement parce que comme nee nga mbapat yi na yéen ndax am ngeen yaakaar atum ren mu mu mu mu am amélioration maanaam mu gën bu daaw bu daaw bi non c'est-à-dire bu daaw bu Euh, lii suñ problème rek mooy manque de densité bi parce que densité bi mooy poids euh, poids gerte bi bu foorul vraiment dafay nekk euh, beneen problème bu nga xam ne ñu koy ut niñ ci mel ñu ci waroon a mel mais ak lu mënta xew rek ñun moom gëm nañ ne daal gerte gi comme que bëriwul moom te nit ñi nañ ko gëm nañ ne bon ñiy jënd moom peut-être ci xool ci densité mais nañ xool ne ku ñeex ñàkk te bu boobaa danañ ci mettre prix bu nga xam ne vraiment dana nekk njëriñ pour baykat mais en tout et pour tout yaakaar naa ne au niveau ministère de réflexion yi ñuy def ni di ko gën di pousser pour gën a xoolaat dégg nga maam naka la ñuy gën a defaree agriculture parce que agriculture bi ñu ko bàyyee ni yaakaar naa ne dana nekk ay tolof tolof yu nga xam ne ëllëg du neex kenn donc yaakaar naa ne daal ñuy gën a encourager euh, au niveau ministère ñu gën di haut euh, acteurs yi ñuy gën di réfléchir sur les manières de faire et de voir yoo xam ne dégg nga maam dinañ mën a bi Euh, yaakaar naa ne si suñ journée de réflexion yi feeñoon na ci. Hmm. parce que li ñu doon wax ne vraiment semence bi posé na problème. mais ñun tim suñu analyse yu ndaw yu nga xam ne ñun ñooy pratiquant dégg nga moom sur le yaakaar nañ ne semence yi posé na problème. mais ci biir réflexion yi. Euh, génne nañ ay piste yu nga xam ne. yaakaar naa ne dañ xoolaat semence bi parce que euh, am na réflexion yu nga xam ne. waxoon nañ ne ISRA am na près de dix variétés yu nga xam ne. fi nekk nii ñu ngi ko war a mettre en œuvre pour multiplier ko jox ko béykat bi expérimenter ko pour jox ko moyen que ñu mën mu a nekk a euh, nii pour nga am sax une tonne de rendement dafay nekk problème donc yooyu yëpp mm. ay xalaat la yoo nga xam ne fi ñu ko defee yaakaar naa ne war lay mën a joxe njëriñ yu am seen yu am doole bu ma la déggee ngay wax dafay mel ni mbéy mi baaxul euh, nawetu ren wi waaw waaw mbay mi dafa naawee wet dafa naawee wet comme langage bi muy waxee parce que dafa am zone yoo xam ne vraiment taxu koy demee noonu ba pare am na zone yoo xam ne comme li ma la ci wax parce que ñooñu ñoom presque seen ngas buñ gasee presque bon di fekk dara ci euh, ci doom parce que mais ñu sax par dafa am zone yoo xam ne aussi mais ñu ne trop trop trop trop parce que lu ma sa am euh, da koy gis gerte gi bu bëri lool boo buddee dëj bi mais boo xoolee ci biir dafa fekk boobu donc yooyu mooy tax moo tax ñu ne gerte gi euh, ñu waroon a mel melu en, euh, en poids et en quantité donc loolu mooy suñu problème peut-être volume bi day au rendez-vous sur parce que li ma la wax moo ci nekk mais trop génn na parce que bu waroon a boo guddee dëkk bu waroon def dix tey ren daf na trente dëkk mais boo ko peese dégg nga daf lay génne poids bi faible. waaye terewul njiitu réew mi moom mu ngi rafetlu campagne agricole wu atum ren ndax jàpp nga ne dafa amul xibaar yu baax yi. waaw xam nga njiitu réew mi moom président nga xam ne kiloowul lu lu baaxul safaan lu baaxul président moom li ko war mooy wax lii dalal xelu nit ñi wax lu nga xam ne da nga maam mooy tax da nga maam réew mi da nga ñu nekk ci situation am euh, espérance mais ci li ma mën a xam daal mooy euh, gerte moom euh, niñ ko doon yaakaare année yi yaakaar naa ne ñoom ñëpp war nañ mën a d'accord ne gerte gi dana am tuuti wàññeeku wàññeeku ci ñëm ci ci sama xam-xam bu bu néew léegi nag je pense que ne buñ demee ba génn ba génnee estimation yi yaakaar ne war na ciy refléter parce que euh, niñ ko foogee woon ak euh, ni mu tëddee ko taw na trop trop trop trop mais euh, ci yenn zone yi la wax taw na trop parce que man localité bi ma nekk nii vraiment bi mu commencé taw ba bi nawet di jeex amul benn yoon bu mu arrêté mais densité bi nekk au rendez-vous yooyu nag mooy problème bi donc yaakaar naa ne daal président moom loolu la mun a wax hmm, langage diplomatique la comme on a l'habitude de dire bi moom du wax luy tasum réew du Euh, lu nga xam ne dafay indi ay jafe-jafe mais gën naa ne euh, war nañ xam ne gerte gi euh, am na manque manque bu weesoo Sonacos ñan ñeneen producteur wala sax opérateur ñoo nekk ci marché bi ñi nga xam ne ñoom it dañuy bokk ci campagne bi waaw campagne bi je pense que ne moom dafa ubbeeku partout te yaakaar naa ne protocole Chine Sénégal bi ba léegi muy exister donc euh, chinois yi chaque année dañuy ñëw pour jënd gerte pour yóbbu ko à l' exportation exportation dafa nekk lu nga xam ne fi mu nekk nii dafa bokk ci euh, circuit commercial bi et je pense que ne ñoom euh, dinañ ñëw encore une fois pour jënd lu nga xam ne dinañ ko yóbbu bu dul loolu sax doomu Sénégal yi fi mu nekk nii dañ ko boole comme ni industrie nekkee ci circuit bi noonu la exportateur exportation bi nekkee circuit bi donc ñoom itam seen activité ci foofu lañ ko basé yaakaar naa ne ñoom it dinañ ñëw mais ak fiy yurdu parce que man danaa fiy gis ay quelques indiens te président la république demandé woon na aussi à ce que dégg nga maam les ñëw donc yooyu yëpp bu ñu ko gën a am gerte gu baax dégg nga maam ak quantité bu bëree bëree yaakaar naa ne ñooñu danañ gën a war a mën a ñëw pour dégg nga paysan bi di gën a mbayam dégg nga di gën mën a rentré sur des xam ne ëllëg bi dana mën a yore njabootam yore réew mi réew mi dox lépp mën a dox bu chinois yeeg ñoom ñeneen. waaw léegi nag boole bi mooy pour année bi moom. Ah, xamaguñ lan mooy xew parce que euh, déggaguñ dara déclaration euh, prix euh, officiel bi rek lañ dégg xamaguñ nag yan ñëw ci cible parce que fi nekk nii am na ñoo xam ne doole yemul donc pour nga équilibrer marché bi il faut nga am ñoo xam ne da leen teg lu nga xam ne bu boobaa danañ mën a ralentir yem ak ñeneen ñi nga xam ne da nga ñoom seen doole yemut ak ñoom ku ci nekk mën a am sa wàll ci mbir mi mais loolu pour l'instant gisaguñ ci lenn lu nga lu lu taxaw la mais yaakaar naa ne fekk ay fan danañ gën a gisaat plus clair pour xam kan mooy daf lan ak kan lañ teg lan da nga maam bu boobaa yaakaar naa ne dana gën a mën a leer ci bopp nit ñi bu boobaa ñoom ñëpp ñu départ ndoor comme li ñu wax Sonacos la ñëpp départ ndoor ci ligne de départ bi yaakaar naa bu boobaa dana maam ku ci farlu di war a man a am loo am mais bu nekkee ne ñii dañ départ ñu protéger leen ñu jënd ba feesal loolu aussi doog naa ne du libre euh, marché et équilibre bu baax bi Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax.